dëkk bi neex na de. coupe d'Afrique baa ngi waaj ñëw. waaye gars yi wax coupe d'Afrique dañ koo jël teg ko nale. pétrole bi. ñu seeti Cissé Lo lu mu ci xam ak lu mu ci xaas. ngi leen di nuyu nekk sa tur ak sa sant soo ma xoolee sax ak ni ma soloo tey di xam ne man namuma coco man namuma saala yaay nder man namuma ali penda ndoy borom di jël yu mag ya man namuma xam nga réew mi Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne bu fekkee ne dañuy wax buzz bi mu xewee yàggul topp ci benn pétrole di wax te pétrole xeeñagul feeñagul lii sax mun na tax pétrole bi gedd dellu yoonam jàppal Macky indil Aliou jàppal Aliou bàyyil Macky waa ba kañ réew mi ñëpp ngi juum léegi di julli heure boo xam ne waruñu ko julli ndax waa ji timis la tudd coow timis coow timis ba timis bu jotee gaa yi fàtte julli timis billahi li leen di wax ni jàpp leen ko pétrole réew mu dugg te amuñu ngor jàpp ñu ngor amuñu xel bu dal mën na taal réew moomu man aw ma dara lu ma ci leeral damay araftu senegal dañu mën a werante ci loo xam ne tegu ñu seen bët ñu fiy nekk di wax yëpp yëpp yëpp yëpp mais bu ñu amee lu leer di ko procureur waxee nañu dem génne ko waaye nekk ci rajo yi di mbambi mbambi nekk ci télé yi di mbambi mbambi mais président Macky Sall li nga xam ne moom la ko sénégalais yi wóolu ba jox ko mais nañ ko bàyyi mu liggéey man patriote laa sama ngañ nekku ci yenn yi waaye pétrole bii nga xam ne amul ku mun a taxaw ne genn wàll litre ngi ci war a genn wàll walaat ana kan moo ko génne pétrole baa nga ndar pétrole baa nga ca xaayu mu nga ca waaxu Casamance fu ne ñu ngi koy wax waaye kan moo mun a natt na genn wàll walaat ngi nii nañu bàyyi wax ji te réew mi amaguñu pétrole boo xam ne nit gis na ko ah ku nekk di ŋaawi sa lammin bi di ko tàllal mel na si ngom bu ñu kenn lay gis nga bu ma nekkoon procureur de la république sama yat laa yor ku ci taxaw wax te wóor na li ngay wax leerul dana la yóbbu ci place de la nation fu ñuy gréwee ñoom teg la fa teel a di la ndulli ba ca ndar kàmm ñëpp gis ko xam nga am na yoo xam ne day yee fitna te fitna kenn xamul fu mu yem waaye luy pétrole Sénégal yàgg dund te amuñu petrol ñun suñu pétrole mooy Alaaji Malick suñu pétrole mooy borom Touba Baye ñas Limaamu Laay ñoo ñooy suñu pétrole ndax ñoo fi ñaan ñaan boo xam ne tey réew maa ngi ci jàmm kon duñu kenn rey ma ne man lenn rek laay wax président Macky bul faale bul toppatoo yoo demal liggéey yoo demal liggéey yo demal liggéey yoo liggéey yoo demal liggéey waaye ni Macky demal liggéey Macky demal liggéey yow Macky demal liggéey ni Macky demal liggéey Macky demal liggéey Macky demal liggéey yow Macky demal liggéey Macky demal liggéey ni Macky demal liggéey Macky demal liggéey